merci beaucoup euh, seen internautes yi nga xam ne yéen a ngi seetaan ci sans limite TV ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen euh, jaajëfal am mbégte contentement ñëwaat jàkkaarloo waat ak yéen euh, tey euh, ñu ñëw fii ci diwaanu Louga li ko waral lakk xam ngeen ne ni ki démb rek la euh, gone Sénégal yi nga xam ne ñoo doon jongante li ñuy tuddee championnat d'Afrique des nations di CHAN démb seen jàmmaarloo beeg diggante ak Algérie ñu daal di jël ndam li daal di jël raw gàddu duga foofa ca Maroc kenn nag ko ci ñoom koo xam ne nii ba jongante bi commencé léegi ñu gis ko muy koo xam ne nii am ci taxawaay bu xarañ lool di doomi Louga ñu tudd bu papsi ñu gën koo xam ci papi tur wiñ koy wooye fii ci diwaanu Louga njàmbarte googu tax ñu ñëw fii tey nag ci ak njabootam ci nga xam ne mooy famem fas yéene seq ak ñoom li nga xam ne mooy aw waxtaan gën yéen ñi nga xam ne ci sans limite ñi toog ak ki nga xam ne mooy yaayu papi yaay booy ñu ngi lay di la dalal jàmm ci sans limite TV bàyyi la nga nuyoog internet yi di la laaj kan mooy papi tey buñ la doon wax nga waxal ñu résumé ñu kan mooy papi rek yan témoignage ngay def ci jëmm jooy nga xam ne mooy pap si. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen di leen ñaanal di leen ziar di euh, sant yàlla bu baax di jull ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax ni papi sama doom la ndax yaayam moo ma yar yaayam nekkatu fi waaye mi ngi mel ne mi ngi fi ndax mooy sunu mag mooy sunu taaw ñun ñëpp macha allah papi du xale bu yaru teel a bëgg football. jaar ci ay loxo nag muy loxo Pape Sène fa la njëkk a jàngee football ñu xam ne kii bëgg na football ñu jàppale ko ci macha allah ba dem génération foot fa la nekkoon ba lii ñëw tey muy xale bu yaru boo xam ay yaayam macha allah jullite yaru bariwul wax waaw papi moom wax dëgg yàlla bu may wax ci moom sama xol day fees waaye sant yàlla rek la ñuy wax di sant bu baax. di ñaan yàlla lafal ko cat musal ko ci ndokk ak seytaane waaye kontaan nañ lool macha allah. <laughs> papi fan la yaroo luga la yaroo wala dafa génnoon feneen fu dul Louga nekk foofa. non non moom Louga gi la yaroo waaw mën naa ni lii tax ngeen ñëw fi tey moo ko génnee Louga waaw fii la juddoo fi la yaroo waaw football bii moo ko tax génn buñ ko gisee ci école Pape Sène la dem génération nekk na itam nawetaani football na njàmbur euh, itam football na si macha allah ba lii am tey waaye fii la juddoo fii la yaroo. <laughs> démb ngeen seetaan ko mu bokk ci benn championnat boo xam ne moom la ñu juddee championnat euh, d' Afrique des nations championnat des nations nga xam ne euh, Sénégal moo ko jël waaye moom mu am ci taxawaay boo xam ne taxawaay bu am solo la ba Sénégal gépp di ko di ko rafetlu moom papi démb lañ jël ko bi loolu nan ngeen ko dundee yéen ñi nga xam ne yéen ay waajuram xanaa kontaan ci rek waaw kontaan ci wax dëgg yàlla waa Marbat yëpp génn macha allah dañ ci defuñu ci lu dul kontaan di santaat yàlla rek bu baax di kontaan di ko gën a ñaax rek mu gën a góorgóorlu waaw démb moom wax dëgg yàlla waa Louga yëpp sax laay wax rawatina Marbat ñëpp ci kontaan ñëpp kontaan ci li mu def waaw ndax loolu rek lañ doon ñaan yàlla mhm. gardien du tournoi euh, papi jaar ci say loxo tey euh, xam naa yow kenn du la gën a xam papi euh, buñ la doon laaj rek kan mooy papi lan nga ñëw ci mën a leeral. waaw donc man Pape Sène laa tudd hmm, d'abord l'historique de AFSIS bi nga xam ne ci laa doon formé papi AFSIS dafa démarré en 1982 booba tuddagul sax AFSIS école football du CEREPS la tuddoon. alors ma yor ko bi en 99 laa formé euh, AFSIS moom nag bokk na ci jour yi ci jiitu yi ci nekkoon amoon na ay nawle waaye évidemment ñenn ñëpp tasaaroo nañ euh, bi nga xamee ne yor naa ko itam papi yàlla def muy koo xam ne ku série la mu fonk liggéeyam muy koo xam ne itam vraiment di àndoon ak yar goo xam ne ah, lii am tey bettul ma waaw moom nag bi nga xamee ne formé naa ko en booba il était cadet euh, ci la ñëw euh, joué fi cadet ci man ab sis ensuite mu jóge fi temps junior dem dem euh, étoile Lusitana ensuite dellu siwaat Njàmbur fii la footballé ba ba bi muy dem génération foot waaw bi mu fiy jógee nag gaañu gaañu la fi joge woon ba presque digganteem ak Njàmbur looloo ko arrêté ndax defa gaañu muy weyu nawet fermeture saison alors njaamur soins yi waroon deful ko ci moom muy fajoo ki mbokkam presque perdre na une année bu mu fulbalul léegi nag bi mu wéree alors que ma nekk en collaboration avec Madi Touré bu bu GF ci laa ko ne am naa gool boo xam ne il est excellent te fi mu nekk dafa nekkatul sous contrat ci la jëlee Dakar oto ànd ak ay astafam technique eh, dont Perrin ñëw ba fii jël si papi ci la yóbbu papi mu dem fële génération foot mu defal ko fa opération ci benn tànk bi booba tane mu dem premier match mu joué mu tarxi sat beneen ba ubbeeku mu demaat def ci ay soins ba papi taxaw papi nag ci la liggéeyee ba lii nga xam ne presque eh, ni doon def fii tamit nga xam ne noonu la doon footballé eh, ci marbat bi nga xam ne ko ne xam nga ko Marbat joué na fi nawet bi ki la doon joué waaye c'était l'homme fort du Marbat parce que boobu temps man may entraîneur Marbat en même temps waaw c'était un boo xam ne fooy football ak Marbat da ngay wax d'abord papi naka laa koy dugalee bi waaw il était presque à 90 pour cent bu Marbat papi la woon waaw léegi nag ah yàlla dimbale ko ba lii mu am ñu ko ci vraiment di di ko ci sargal Eh, di ko ci félicité te di ko ñaanal yi tamit mu romb fii ndax ay moroomam dem nañu te mënuñ ko kon moom wërsëgam moo desoon moo yegsewul te bés bu yegsee a ah, yàlla dina ko def ñu ko koy ñaanal di ko ñaanal ndam li jig ko di eh, félicité Sénégal yëpp itam ci ndam li di leen ñaanal ñoom ñëpp ndam li jig leen quoi waaw papi daal nekk na nit koo xam ne daal nit ku nit ku luñ la nit wax ci moom rek ci nangoo liggéey rek des na te du ci boole wax du ci boole coow du ci boole dara mosuma koo xamal acte indiscipline mosul am mosul am waaw fonk na ay mbokkam fonk ay frère am fonk ñi mu dëkkal ci ci biir dëkk bi fii Marbat aussi doon laaj ay qualité yi ñu gis ko koo xam ne nii euh, moom ballon de pied mën na ko waaye mu doon koo xam ne nii tamit euh, dañ koo gis mu mu mu am ko réflexe trop am rapidité euh, qualité yooyu noonu ba mu ñu doon waxaan ci qualité papi lan nga ñuy wax. d'abord papi xam nga ne dafa njool njool day tole balu suuf papi nag loolu la gënoon am force comme góolu inde bal la daan def balu suuf mënoo ko ko dugal parce que suy joxew day joxe yaram bi fii bàyyi tànk bi fee te itamit daf daan jouer avant centre papi mënoon na jouer avant centre te daf lay dugalal bi dul jeex ndax dafa xamoon fi muy taxaw aussi intelligence am mayoon na ko fu mu laqar ci ko rek soo soxlaa bi mu dugal ko donc Papy c' est quelqu'un boo xam ne pétri de qualité de qualité yooyu rek waaw am na intelligence boo xam ne yi tamit euh, lim doon football peut-être léeg mu football moo ko ko mayoon bi avant centre bu mu jàkkaar loolu doo xam fooy def bal bi waaw loolu moom xam naa ko ci moom euh, liggéeyam daal moo ko may loolu yëpp quoi waaw ba ci aussi bon xam nga moom joueur joueur de sang mënoon na ko te tànk bi itam saf na saf goo xam ne su waxuma muy tiré penalti waxuma muy jàpp penalti de mais tiré penalti sax ñooñu bu ñu ñàkkoon bàyyi ko moom mu dugal ko du du raté penalti waaw euh, placement boobu moo am itam ak réflexe boobu mu am moo ko may boo lóoree penalti cinq penalti yu ne ñun danañu ñu ne dana dana jàpp ñaar wala ñett moom ci série penalti mar Ba demalan seeri penalti ñetti penalti yi dana ko ci jàpp wala ñaar yi dana ko jàpp yéen kañ dugal leen rek lay wax. waaw bu ngeen dugalee benn sax mu ne danaa ci danaa ci génneel wopp ñaar loolu moom assuré woon nañu ko moom xam naa ko ci. merci beaucoup waaw. merci ñu ngi mm-hmm. baax. na. yow yaay euh, nijaayam eh, yaa ki ko yar euh, papi eh, mu nekk gone bëgg li nga xam ne mooy eh, football nekk am ko gardien de but euh, ay ndoorteem ci li nga xam ne mooy football ndax mën nañ koo xam nan la def ba dugg ci ak nan la def ba doon li nga xam ne mooy gardien de but. waaw ginnaaw bi ñuy sant yàlla julli ci yonante bi euh, ñu ngi ñaanal waajuram bu jigéen bi nga xam ne ni làqu na euh, di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana yi gën a kawe ak bépp mbooloo mu bu sàngoo suuf euh, di wax rek ni ci famille bi laa bokk parce que relation étroite la ñu seqoon depuis maam ba léegi ñu sosooy kër te dara masul ñaaw lépp rafet Euh, début pape yi nag euh, daanaka suñuy bët la doore parce que ñun ay sportif lañu particulièrement des footballeurs te quartier bi mu dëkk euh, quartier muy quartier Marbat muy ASC boo xam ne nii ñu ngi koy dégg fu bari ci Sénégal même ci monde bi fii fii la pap yi dëkk fii la commencé premier pas am ci football ci bi muy nekk xale di ko def ci mbedd mi. ba ni muy duggee ci benn école de football. bu ñuy wax AFSIS. Pape Sène jiite ko nekkoon dirigeant Marbat comme koñ bi bari woon na ay jeunes yoo xam ne peut-être mën nañu football. te amuñu woon encadrement bi nga xam ne moo ci war moom mu ubbi école de football xale yooyu jaar fa papi ñi fa jaar ci la ci la ci la bokkoon. bi mu jógee nag AFSIS euh, jaar na génération jaar na euh, laa jaar na euh, non pas kii. Lusitana étoile Lusitana boo xam ne doomu Louga moo ko yoroon muy Ousmane Dieng dëkk Payen euh, mu nekkoon ca te moom fa nekkee sax euh, amaloon na ko ci am pré mu am présélection équipe nationale U17 euh, peut-être li tax mun woon a dem problème mu passeport moo taxoon ba ni mu ñëwaatee Louga joué Njàmbur bi mu joué Njàmbur aussi tamit ci la ko génération foot gis ci championnat bi euh, ñu ñëw fii seet su ko waxtaan ak moom jël ko yóbbu ko mais Papis parcours am yëpp Louga la ko defee fii la yaroo fii la màggee euh, li ko génnee Louga rek mooy sport bi football bi ñu pratiqué. ci jaariñ googu mu jaar jàmbur gis nañ ne dem nañ ba ci digg saison bi amoon na ay blessure blessure yooyu xawoon ko freiné ci li nga xam ne mooy wàllum euh, sport blessure yooyu bi mu ko dabee ci li nga xam ne mooy carrière am famille am naka lañ ko dundee moom li nga xam ne mooy blessure yooyu. Ah, xam nga ñun ay juddit lañu te xam nañ ni ndogalu yàlla du ñàkk ci ci doomu aadama ak blessure boobu nga xam ni moom la jëlee woon jàmbur muy genou genou genou droit am. Euh, bi mu ko dalee toog na deux ans yoo xam ne nii euh, daanaka pratique wul football te mën nañu wax sax ni loolu li retarder carrière am ci la ci la bokk ndax euh, ni nga xam ni ñoo ko juddulu yar ko te di ko suivre xam nañ ni fii mu toll nii waroon na ko weesu mais lu yàlla dogal ci doomu aadama rek mu du lool du mën a ñàkk bañ a am ba tax na blessure boobu bi mu ci jógee Euh, du kenn ku toog ci famille bi parce que xam na ni lu mu bëggoon la te lu mu mën la euh, lu ne def nañ ko lu ne jéem nañ ko pour mu dellusiwaat ci football bi nga xam ne moom la bëgg mais alhamdulilah ñaan yi doon def ak faj aussi tamit boo ko famille doon faj ah euh, tax na mu mën a delluwaat ci ci ci ci ci football mais ñi ci gën a gën a gën a fés. ci faj bi te def ci moyens yi nga xam ne nii moyens yu conséquent la ba tax mu war a mën a footballaat ci élite bi euh, génération génération foot la parce que ñoom bi koy jël si euh, ci blessure lañ ko jël si xamoon nañ ni euh, blessé na mais malgré loolu ñoom soxla woon nañ ko loolu nag vision bi ñu amoon xëy na moom la sa Sénégal soo ko gis waaye ñoom gis nañ ko bu yàgg ndax jour bu nekk sous blessure nga mën ñeme koo jël si dëkkam ba pare signé ko contrat sur blessure am na loo séntu ci moom am na loo yaakaar ci moom mais loolu lépp nag soo amee c'est parce que mayu yàlla la am ci ci góolu euh, tamit aussi tamit mu fullaal ko te ñàkkul ko fayda parce que heure bu nit ñi di nelaw moom ma ngay dem di entraîner pour au moins mu performant saa ñu ko dugalee rek mu performant lépp loo xam ne nit ñi yaakaar nañ ko ci moom mu mu def ko waaw gis nañ ne euh, bi euh, laata li nga xam ne mooy euh, championnat bi di jeex dégg nañ ne Papy am na benn club français bu ñuy wax Nice boo xam ne nii dafa signé moom contrat est-ce que loolu mën nañu ay rumeur la. waaw mu ñu nag amoo ci famille bi amaguñ benn confirmation par rapport ak ak loolu je crois que incha allah bu neexee yàlla su ñëwee parce que am na nijaam boo xam ne nii moom moo yor léppam muy muy Ndoura Sarr xam naa bu ñëwee parce que ñoom dañuy jokkoo régulièrement je crois que. dafa voyagé mais su ñëwee incha allah bu neexee yàlla lépp li ci am ci domaine boobu nga wax léegi nii euh, dañ ko ci daañ ci daañ ci wax li nga xam ni moo ci moo ci nekk mais pour l'instant amaguñ ci dara loo xam ne nii lu lu ñu mën a teg suñu loxo la voilà. Hmm, première yi aussi tamit aussi bu dee am. Hmm. Euh, club bi nga xam ne nii fa la nekk nii actuellement. Hmm. te di ko utiliser. Euh, muy génération foot. te daanaka administrativement wala ci côté yooyu. ñoom ñoo koy ñoo koy gérer. je crois que euh, ñoom daañ ci gën a yelloo pour mën cee répondre ak waxtaan ceeg fin bi pour pour loolu mën a mën a mën a sotti. Mm-hmm. Euh, c'est la première fois ñu gis ko mu remporte benn trophée international euh, loolu lan la leen def yéen ñi nga xam ne yéen bokk ci famille waa am ci mbégte parce que fekkee ne dañoo dëkk Louga mu bokk ci Sénégal kenn ci sunu doom. ci quartier bi ñu dëkk muy muy Marbat euh, bokk ñi nga xam ne nii ñoom ñoo doon xeexal Sénégal ba yàlla may leen ci ndam boo xam ne nii moom la Sénégal gépp doon séentu duñu am duñu am lu dul am ci mbégte ndax euh, bari na ay footballeur yoo xam ne nii ñu ngi ci Sénégal suñ ko tànnee ci moom 26 yi moom mu bokk ci buñ ko ci tànnee mu bokk ci loolu sant yàlla la rawatina nag moom bi mu demee nga xam ni euh, ñàkkul fulla yaa fusul wane na njàmbaaram góor góorloom xam fi mu jógee ak fi mu bokk ba wane boppam ba ñu def ko meilleur gardien du tournoi kon loolu c'est c'est c'est quelque chose famille bi moom mbégte rek la ci am mbégte la ci am xam ni seen doom fa mu nekk xam na la ko fa yóbbu te xam na tamit waree fii ci war pour mën a tax àdduna bi pour teg la bët ci football bi ngay def voilà jërëjëf na dama nga ñu fàttali tur bi. waaw ah, man maa ngi tudd Eumeu Dieng euh, waaw nekk bokk ci famille bi euh, nekkoon tamit aussi ancien footballeur euh, bokk tamit ñi ko encadré ci seen sa premier pas ci ASC Marbat mu nekkoon cadet ba ni mu nekkee senior bon wax naa jaar jaar mi jaar yëpp moom papi bu jógee Marbat dem na. étoile Lusitana jóge étoile Lusitana ñëw Njàmbur jóge Njàmbur euh, dem dem dem génération foot voilà ñun tamit aussi parcours boobu daanaka moom la ñu la ñu la ñu la ñu la ñu am football nañu Sénégal génn nañu tamit aussi football coupe d'Afrique ak ak Njàmbur euh, mooy club bi nga xam ne ni mooy club Fagnon bi nga xam ne moo nekk Louga waaw voilà ñu football ci élite bi kon euh, ci quartier bi mu dëkk quartier sportif la c'est des footballeurs Euh, yoo xam yoo xam ne nii jaar nañ ci élite bi kon euh, encadrement am du du jafe te kër gi mu dëkk ñi mu nekkal ñépp football la ñuy la ñuy dundee même jigéen ñi sax ba nañ joxoon bal ñu tal ko. <laughs> d'accord merci beaucoup euh, tonton mooy moom ci famille bi la bokk. sa frère nga gis ko exploit yi nga xam ne def na ko ci championnat d' Afrique nations ba ñu tabb ko li nga xam ne mooy gardien bi nga xam ne moo gën a xarañ ci euh, championnat bi euh, tey ji euh, ban fierté ngeen am ci ki nga xam ne mooy seen mag bi di Papy. bon tout d' abord maa ngi leen di nuyu di leen bon Papy nag lii ni comme li ma ciy wax nii rek Papy lii du sens lii mérite la quoi waaw parce que ñun ñi dëkk ak moom. ñun xam nañ ko bu baax a baax parce que xamoon nañu xamoon nañu bis bi dana ko am waaw ndax moom dafa nekk koo xamante ni dafa gëm li muy def bëgg ko fonk ko aussi ba boolewu ko ak dara donc liñ ni xam nga rek loo loo liggéey rek loolu ngay fayu moom loolu moo ko arrivé tey jii waaw te nekk na ko nga xamante ni moom football bi moom da koo jaral lu ne ba tax mu blessé. nit ku blessé toog laaxat toog koyam di entraîné di xeex di ñafe di ñafe bon bariwul ñu bariwul ñu koy def di ñëwaat mais li li ko arrivé nii nii nii yombul parce que nga blessé nga blessé nga toog sa ruq di ñafe ni man dinaa ñëwaat di xeex subaak ngoon musul tàyyi di reyante ba amaat bi mu am ni tey jii nii kon kooku gëm-gëm mook ko jox quoi waaw donc mu blessé yéen ñi xam ne yéen ay famille yéen ay jege ñaar ñoom naka ngeen ko taxewoon. bon ñu ngi doon def luñ mën nag waaw ñi ngi doon def luñ mën parce que mosuñu ko seetaan daal mosu ci wéet parce que xam nga ni ku nekk ak euh, li nga li nga bëgg rek ci loolu lañ la war a mën a jàppale quoi te moom dafa jël football bi moom def ko li nga xamante ni moom mooy euh, bëgg-bëggam waaw moo tax euh, dañ ko doon dañ ko ci doon jàppale te aussi tamit di ko ñaanal yàlla. waaw parce que xam nga li liñ lu jot yomb. moom sax moom lay ma gën a neex ci moom moom dafa nekk koo xam dafa gëm yàlla. bi mu blessé bi mu blessé yooyu yëpp moom boolewu ci dara dafa gëm yàlla ne xam na ni un jour viendra dina réussir li mu ci bëgg dina ko am. waaw donc euh, sant yàlla daal waaw. boo ko doon lancé message jamono ji ban message de motivation nga koy lancé ak li nga xam ne moo nekk ci kanamam. Hmm. bon li ma koy lancé mooy lenn rek. yokk liggéey bi rek parce que fi mu nekkoon foofu la rek bu ko yokku rek bu mu ko wàññi te man xam naa papi bu baax a baax ko papi moom ku gëm li muy def la te bëgg na ko jox na ko àqam ba mat sëkk donc ñaan yàlla rek waaw ñaan yàlla rek yàlla jàppale ko ba ñu ci bëgg yàlla defal ko ko mu am ko daal incha allah. merci beaucoup. ci merci ñu ngi koy jaajëfal baax.